ange bi la bisimila inna waniya laaw jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni zayrona baatinan kenn du Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nuyu nañ kilifa dina nuyu kilifa aada nuyu njabootu làmb yëpp di ñaanal ñi tëdd ci hôpitaux yi di wax yàlla na yàlla fëgg seen bopp duñ fàtt tam ñi nga xamante ñoo nekk ci prison yi di leen ñaanal bu baax a baax a baax ñoom ñëpp ñu génn fa leen fa dugaloon ñu bañ cee delluwaat di ñaanalaat tam bu baax ñi nga xamante dañoo génn àddina di leen wax yàlla na te xari leen àjjana axlu làmb bu leen ko fàttee ki nga xamante ne mooy Albarka Kayre dafa war a taxaw suba devant le juge fële ci tribunal bu Dakar na waa axlu làmb yëpp ñëw jàppale ko du ma taay ci di ko wax ni ngeen def jàppale ko ñoom Ada Fass ak ay ñoom Lac de dem leen en masse ngeen jàppale ko ñu ñaan yàlla suba bu taxawee ñu bàyyi ko mu dem ci ay mbokkam ndax biñ ko tëjee léegi yàgg na te 100 mètres metti na torop torop Albarka Kayre ñu lay ñaanal bu baax a baax a baax suba boo taxawee yàlla na la yoon bàyyi waaye nag dañoo jóge ci bis ñu ànd ak Ousseynou Ngorom borom Mousnakh production grand combat bi doxoon ci diggante booy Gueye ak géant bu benn barak waaye combat ci biir komba komba bu neex amul frein doomu Kër Mbay Fall bi doomu pikin bi amul frein bu àdduna sax la ñuy wax mu demoon fa li nga xamante ne mooy arène nationale yàlla def mu daan ki nga xamante ne mooy xabaan amul frein nag gis nañ keroog beneen amul frein moo ñëw boo xamante ne dañ ko namoon ci làmb ndax ñëw na ambiance ñëw taxaw at bi sifflé mu jëflanteeg adversaire am keroog amul frein bu décidé lañ gis di nuyu mafia bi fi toog yëpp waaye su ma ñëwee Kër Mbaye damay nuyu Boy Niang bu baax a baax a baax maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax <laughs> doo bay jàmbur amul frein dañ koy jox mu nuyoo ñu tàmbal li nga xamante ni mooy question yi amul frein nuyu naa waaw bañ sant yàlla di julli ci rënte bi di gërëm sama ndey di ñaanal sama papa fu mu nekk ko fa mu jógee di ñaanal Ameth Taye di ñaanal Mbaye Baara Aram sama maam bu jigéen ak ñi faatu ñëpp yàlla yërëm leen te jégal leen ñi fi des yàlla bàyyi leen fi waaw ñu nekk si kaso yàlla génne leen sama rakk Moussa maa ngi koy ñaanal jàmm ak ñi fa nekkoon ñëpp waaw ak ñu nekk Cap Manuel Campenal Rebeuss feebu maa leen ñaanal yàlla génne leen foofu. albar albarka yàlla na taxaw gars yi bàyyi ko si kàttanu yàlla di ñaanal Sénégal yëpp jàmm waaw di ñaan yàlla na réew yi am jàmm di gërëm sama ndey bu baax a baax a baax di sant waa Saloum waa Saloum sonn nañ si combat bu baax a baax a baax di sant waa Mambara Canaba Canaba gaar maa leen di sant di leen gërëm di sant waa Simal waa Palam waa Taset waa Thiès ñëpp maa leen di sant di leen gërëm di sant ñu jàpp si combat bi yëpp sant waa Touba tamit waaw gaa yëpp sonn nañ si làmb ji waaw. ay ca amul frais wàccaay combat bi préparation bi nga demoon arène national am ci loo xamante ne jóge woon nga ci wàccaay combat bi ak préparation bi nag metti woon na. trop metti na trop parce que soo amul moyen nag ay ko quoi ñun moom suñu ngor la ñuy demee suñu doole suñu sañ-sañ. loolu loolu am côté bi quoi barki alxuraan ñun dañuy am combat. gars yi jox ñu bolo gu tege ñun mbëri ñoo jël bolo yi di ko wër di ko jaayal suñu bopp kon xam nga ni kon loolu metti na barki rasulullah am am nañ ay autorité mais dañoo bëgg lu yomb dañuy bàyyi ba am seeni business ba pare bëgg ñoo woo loolu mënul nekk te ñun suñ amee suñ soxla taxaw wax ñoom duñu lijjanti barki rasulullah moo tax nag làmb yi man ma dem sama ngor nem sax ñoo xamante ni jàppale nañ ma si ku si mel ni Bokar Thier Père Baydou Mor Gueye Mbaye Douagne ak Pape Ndiaye rakk Moon Ndiaye sant naa ko baax baax jàpp na si combat bi sonn na si ak Moon Ndiaye tamit ak sama grand Ibo sama rakk yi ñoom Dame Baye Mourou ñoom Bébé Saloum comprendre ñoom Maam Seex ñoom Ilo booy yëpp si sonn quoi comprendre waaw booy yëpp boo ñaam assurance da si sonn boo ñaam bu kër Mbaye Fall barki Rasulullah dañoo jàpp si combat bi ñoom xam naa ne ak booy teg teg maan yi nekk assurance yu nekk rédis ñëpp booy ñëpp a doon jàpp si làmb ji garage yëpp ak garage yi. gis keroog ñu gis amul frein bu décidé boo xam dafa ñëw làmb ji dafa mel ni da nga koo bëggoon. ma maa gën a bëgg bëri bi di ko nuyu en a xam nga passage day wax ma waaw passage waaw di nuyu xabaan ko waaw sama gaañ sama gaañ la sama doomu ndey la comprendre nga borom baa la ko waaw balaa muy taxawee ba tey dégg gisante wuñu waxante wuñu lu ñaaw parce que affaire CNG moo taxoon gisante wuñu defuñu signature jour lamb ji lañu soog gisante barke alxuraan billaahi wallaahi taala jour lamb ji lañu soog gisante parce que kër may faal nekk fi mbër dafa metti da ngay bëre benn combat daan bëre beneen combat daan sa troisième ñu daan la nga am problème ngay dégg lu ne barke rasulullah ñu naan du mbër beeg nangam saam li lii ma jaabu rek te ba bàyyi wóor na yàlla loolu tax làmb ji ma sama nafsul laa ciy teg billaay wallaay non arbitre daa sifflé ma wàcc toog samay tànk ferme sama garde xaw ma pied droit la de man moom soo tegee pied droit rek pied droit am dama lay kalaate moom dama lay kalaate tamit mais pied moom waaw waaw mais c'est normal quoi xam rek am na lamb yoo xam soo fa nekkee di yaagal nii gars dañ lay yeb quoi barki alxuraan non non keroog moom du gisee lamb bi pas géwél léegi ñëpp dañ ma nga ñëw heure bii dama tardé woon nag parce que daa xawoon paan yoon bi waaw non barki alxuraan non à la de la la de la sama yaay dafa ma ñaanal ci lamb ji ba sonn barki Muhammad te xam nga rek sama yaay moom tànk moom mu ngi sama ginnaaw di ma dooleel rek billaay wallaay yal na ko yàlla kattanal. dégg nga li ma laa fa bàyyi daw taxaw xaar yàlla <laughs> billaay wallaay li ci des man la maa koy ma ma ne maay diise maay yi maay daan dama bokk ci laamu. bëri na bëri na man problème anniversaire de ma instant bii nii nii ku ma lam mu tegu si code rek mu jël sa avance dépassé ko sama famille hmm. waaw. non waaw booy si booy booy booy fa ay ardo ardo instant bi dama koy dimbali rek su ma koy tourné sax dama koy may ko barki alxuraan <laughs> gënuma rafet palmarès ardo ak yeneen booy yi yeneen booy ay Ibu Afia ak booy yooyu noonu ay Baba Jaxal man daw ma yoole ay booy jeex jaamu naa leen ñuus. waaw mbëri man taay loolu lañ jël. man ñuus lañ ma fi kenn de kër Mbaye Fall daal laa fi bàyyi ak sama booy Pikine Pikine fa laa juddoo yoroo di gërëm waa xam sa cosaan bu baax. ak waa kër Mbaye Fall. barke Rasulullah ma jël sa avance dépassé ko sama famille sama soxna di gërëm sama goro bu baax waaw sama goro bu góor ak bu jigéen soxna si combat bi di gërëm sama soxna bu baax di gërëm sama leer gi tamit làmb yi daa daa am lu ma ñëwee lu garaaw damaa jël avance yàlla def jàmm si sama soxna yàlla may ko leer barke alxuraan waaw waaw li si kanam rawali bët yeneen a nga ñëw nañ jël avance bi ñu xool naa fi ñuus ay mbër barke rasulullah barke téere maam yàlla ku jël avance naa la ñuus ba nga tëddal sa bopp wóor na yàlla bilaa walaay maa ngi nii instant bii laa yóbbu dund bi bilaay walaay di gërëm paa géwél yi ne si lamb yi sama paa yi may tàggat heure ma duggee si lamb yi non samay paa lañ samay kuul paa lañ per paa la keroog maa ngi ko dégg mu may tàggat rek mais gëlëmoon na nag waaw si reportage maa ngi ko dégg Pape amul frein. per per per maa rey keroog. Ah. wóor na yàlla. Ah, Pape Sarr amul fere Pape ko fi bàyyi. Pape Sarr <laughs> ko sant nag moom parce que Paa bu baax la quoi moom sama nijaay ñoo doon ànd. waaw Lamine mu doon toog moom tam sama booy la booy loora loora boobu sama booy la maa ko formé. barke rasulullah moo tax xama rek non mooy loolu Madou instant bi ñëwaat naa billaay wallaay. le retour amul fere. di gërëm Zambala sonn na si làmb yi tamit. waa Mbaaw ñëpp a si làmb yi. barke alxuraan xama rek. waaw noonu la moo tax ma indi ni ndimbal tey nii waxtoogu ma ne boo ñaaw assurance moo ne ma baal bopp bi ni waaw ba ci kanam ni waaw xam nga dof la wérul waaw salaam salaam moto delloo ziar waaw maa ngi ci jàmm maa ngi sant nëbbuutu rek rek nekk si lu ñu war a nekk nëbbuutu rek nekk si lu war a nekk <laughs> bul jaaxle si loolu sax ah. billaay quoi loolu mom dañ siy kontaan rek am si mbégte tamit bu baax baax parce que tamit grand la boo xamante ne nii daf ñu boole yemale comprendre nga amul xaaj ak seen fu muy dem entraînement tamit dañuy yéegal pour ñu ànd ak moom te na tamit nga nekk mag nekk si say biir rak ñëpp nga boole leen yemale leen dañ koy ñaanal li mu seen si amul am yàlla na ci am lu kawe njortam comme li wax rek ndam bi ni mu jógee des na yeneen ak yeneen parce que yàlla da ko war a fay xolom ci làmb te yéene nañ ko ko te yàlla ko waaw yàlla ko ko yàlla suñu borom bi defal moom mu àndal ñëpp di wax ne nag Kër Mbaye Fall mbëri nañ booloo ñu nekk benn parce que Kër Mbaye benn la comprendre ñun Kër Mbaye Fall la ñuy utal li xew pikin xew Pikine xew xew feneen ak feneen war na mun a xew Kër Mbaye Fall ñu bàyyi xel loolu di wax ne suñuy mag lañ fi nekkal. nañ topp si ginnaaw grand yi lu ñu wax ne liire rek loolu la ñun amuñu problème boobu naa sëñ Fall gars yi waaw comme noonu rek ñun ñu ngi suñuy entraînement di xaar ku ñu làmb bo waaw ku ñu làmb rek naa billaahi <laughs> bari jàmm rek non nuyoo gooma yaa may doog a fay naa la sant yàlla gu wér gis nga fas yéene Zembare guddi gi rek ah. waaw waaw non keroog kay daa def daa def loo xam ne ñëpp xaaral ñu ko fa woon quoi waaw. gaay yi gaay yi dagg seen di nekk si line bi di wax ñëw song mu def si ñoom mu ñuus comme ni mu waxee ñuus ñuus ah. ñuus la ñu dem ah. wala demee ma man la man la picc pitié. le jeune dealer. Eh, mbaa loolu wóor na. man bi ma SAEN ah, bi ma gën a jël laa yàgg. ma xool. wey naa leen de gars yi gars yi wey naa leen de jeunesse bi ji nga xale yi mën nañu topp. bilaahi man la pitié le jeune dealer. salaamaaleykum maaleykum salaam. maa la delloo ziar sant yàlla alhamdulilah. bilaay kontaan rek yaa ma gën xam làmb ji lu si la xasoon a ko quoi gannaaw bu ñu sant yàlla. waaw bilaay saa yi jàmbaar la góor la quoi garmi la làmb ji mooy lool noonu moom moo ko jëlal boppam te wéeto wéetoon nañ si torop wéetoon nañ si torop. bilaay wala yàlla ak mbaaxam rek moo si jàpp ak ñaan man ñu baax ñi. bilaay wala noonu la demee nag matu te ma lay wax benn affaire am na am naa licence dama jaay jox billaay wallaay ma maa bébé Saloum bu kën Baye Fall dama jaay jox avance ma bëre billaay wallaay daal damaa war a bëre damaa bokk si làmb barke Bañes billaay wallaay waaw déedéet dama ko dañoo war dañoo war a bëre billaay wallaay daalaay ok amal jaam ok waaw matu ziar wér kay waaw san lañ wér kay waaw man maa ci wàccaay dama xaw am benn blessure nag waaw moo tax fan yaa ma gën a xam waaw dama gaa xaar rek xam nga dama naqaru utale adversaire man gaa yi may de man dama soxor kele de si digg jël bi laa nekk digg saamel laa dëkk si ginnaaw nii laa dëkk de si angle bi barke sëñ Bamba fi ñuy xootee di wokk di sànni fa leen dëkk de barke sëñ Bamba ñun ragaluñ dara waaw mais ñu ngi bëgg a ah. di wax waa Kër ñun Pikine lañ jógee ñëw tuxu si Kër Mbaye Fall bu ñuy dem drapeau Kër Mbaye Fall la ñuy te ñun ay jàmbaar lañ ay bañkat lañ mais waa Kër Mbaye Fall daa am fu ñu féetee dañoo féetee côté barki Seexul Xadim daa am ñuy demal am ñu dul demal waaw nañ boole lépp mu nekk benn ñun ay jàmbaar lañ de ñun gars yi même bu ñu ñëw sax bu ñu demee dañuy a jom wane fula wala fayda ndax ñun loolu lañ xam dara ñun ay góor lañ barki alxuraan mais suñu xewlee ñu bari du leen gis am ñoo xam ne dañuy ñëw def gisee ñu tournoi dem ceene feneen di wax leneen ñun lépp dañ koy dégg mais dañuy dem ak suñu ngor ak suñu jàmbaar ñu dawuñu loolu buñ dee ñun kese sax buñ demee dañuy wane job ak fulla ndax ñun loolu lañ xam mais gars yi boole ñëpp ñu xam ne ñëpp benn lañ xam nga ma la ñu maas nun bi def 100 pour cent di demal leen tey loolu mooy wax ji waaw ñun ñu dara buntu 100 mètres lañ dëkk moo la demee nag. fi ñu toog 100 mètres la de gis ngeen ko nii fi ñu toog 100 mètres la de salaamaaleykum. waaleykum salaam. fay la. baa yaa ngi am jàmm baax a baax. waaw lii lan la am am contentement rek contentement rek. waaw na frère lu grand bu baax la ku baax su ñuul la bu ñëwee fii day ñëw si ASC bi xool ñëw jàpp ak gars yëpp am jàmm borom jàmm la quoi. Ah. waaw di woo waa Kër Mbefa lépp nag dirigeant yi fa nekk ak maire bi ak ñëpp ñu ñëw jàpp si na mbëri fii day sonn gars yi am combat kenn du leen jàppale ñun boo ñëw si sonn di rente am gën a xam di def te loolu du yoon gaa yi bu ñuy soxlaa ñun dañuy ñëw teewal leen te ñun bu leen soxlaa dañuy dawloo loolu du yoon di wax waa kii yi waa Kër Mbaye Fall Aliya bi mbëri ñu booloo doon benn quoi ñu loolu lañ bëgg. ñu loolu lañ bëgg loolu lañ lañ booloo doon benn. maa nuru laa borom nampi xoolal rek day zembare rek amul arrêté waaw waaw xale yi ma rek la ñuy topp maay borom Kër Mbaye Fall maay gérer ñëpp mais rek jànki yeeg lépp kay ñëpp si biir ah. waaw maay faru maire yi billaay yow kenn du wax. ñëw nag ci cappaandaw ji. waaw. waaw na booy Kër Mbaye Fall yu nekk yu nekk jël quoi maa leen di ñaanal ku si ay booy Mbacke. ay booy Rabata Rabatia booy yam Aliou Undu yeneen booy yu bëri. booy Kër Mbaye Fall lañ dëkk yal na yàlla génne fi ñu nekk foofu. ak booy Pikine nekk jël yëpp. ku si ay ñoom petit yeneen gars yi ñëpp maa leen ñaanal yàlla génne na foofu ñu nekk. di wax Kër Mbaye li fi nekk dañ ko war mooy kii laay demal du ma demal kële comprendre nga man ñëpp laa yéene jàmm man ñëpp laay demal amaa kenn xaar ma yàlla mm-hmm. mais barki Mouhamed laa léegi yéen man ku dem sama làmb damay xam ni carrément dem nga sama làmb Madou jaay naa ay nit ticket ñu may daw si simple 2000 barki alxuraan dama leen ko bàyyee après man sama xaalis laa génn gérese complété sama ticket pour lan bañ ku ma yab. Mm-hmm. wër na rasulaay Kër Mbaye na ñëw dooleel gars yi comme ñu dooleel yeneen booy yi fii nekk ñu bàyyi affaire seytaane yooyu def affaire jaxase yooyu amul sens nit da ngay gëm sa bopp rek nekk ci yàlla jàppale la di sant waa Ridis bu baax di sant waa Kër Mbaye Fall bu baax waa Ridis waa Tool Dias Kambo assurance waa Pentance sama dëkkandoo yi nekk jéggi pont bi nii maa leen sant sama dëkkandoo yi ma dëkkal Ridis. ñëpp ak ñoom Nande ñoom Cheikh Ndiaye ñoom Sidi ñëpp maa leen sant di gërëm di sant waa Saloum bu baax tamit alaaji mi fa nekk maa ngi koy sant di gërëm yaayu bébé Saloum mi fa nekk ak papaam ak rakam mi fa nekk jàppale nañu Caadu Bambara maa ngi koy gërëm di ko sant lamb ji dañoo sonn barki alxuraan ay magam ak magam ay vieux gars baaba ñoom ñëpp dañ see sonn di sant waa ba gaar bu baax baax a baax. di sant waa Mbambara bu baax di sant Siri doomu nday caadu Bambara di sant ñu jàpp si lamb ji yëpp di sant sama grand frère Iba di sant sëñ Mor borom Touba maa ngi koy sant di tamit jàpp na si lamb ji sant waa koñ bu baax baax baax baax maa ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal salaam alma sama gaay la sama doomu la jóge na am ci defet dégg ci lu ne barke Rasulaay li kanam raw li na teg waa Sikoor yàlla jàppale ko may ko ndam asan Karba borom kambu yalla nako yalla defal jam tamit mu gor waat teg waa Sikoor yalla may ko ndam ak Cheikh assurance di sant sama wa écurie bu baax baax baax sama wa écurie keur may fal jàmm ji mbeur yu ndaw yak yu mag ma sant di leen gërëm jàpp nañ si combat baax di sant kursi papkan Ilo kursi Ilo ak kursi Tons ñoom ñëpp ma ngi leen sant di leen gërëm di sant ñi ne si ginnaaw waaw di sant naa daal di la sant yow Modou tamit waaw sant sama soxna bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal salaam parce que rasulullah di ko lu mu moo xam daal yàlla na ko yàlla defal jàmm rek waaw sama yaay yi nga xamante ne dañuy sonn si man ak paa xale yu ndaw yi xaw ma seen fay parce que rasulullah yaay boo ñaar day sonn ci man daf may ñaanal ak papaam fóor na rasulullah di sant ñi may ñaanal ñëpp paa yi ak yi xale yu ndaw yi ñëpp maa leen sant di leen gërëm surtout cag-cag maan yi nag surtout cag-cag maan yi cag-cag maan yi benn cag-cag kamb di assurance di fu ne ak booy Pikine yi Pikine maa bu baax di ñaanal ñëpp jàmm ñi am combat kër fii yàlla may leen ndam ku si mel laay bu ndaw yeneen booy seen combat yi daal yaaxu waaw daal ku fi am combat daal yàlla na yàlla boo ñaa di ko ñaanal mu jël avance saa daaru yàlla am avance comprendre nga caadu bambara yàlla am avance nam ay victoire trois points dañ ko namm kër Mbaye Fall sonn nañ trop seytaane yi baal ñu liggéey seytaane yi laay waxal Mor li may da am solo de seytaane kër Mbaye Fall yi yéen a ngi may dégg man la fere maay wax nii en direct la nii waaw ngir yàlla ak yonent yi bàyyi leen mbëri liggéey ñu bokk ndey bokk baay ngeen bàyyi affaire seytaane yi ngeen di def waaw kosum sant naa la gërëm naa la sant waa sama ngénte li la 23 la. ngénte la 23 la sama ngénte la 23